xalaat 77 810 90 90 waaye balaa dara rek dañuy daal dem déglu teewlu la nga xamante ni moo fa jot a xew euh, ci ay kàddu daal di dellu si waat ak ñoom ñoo woteel euh, euh, waa Pastef ñoom ci askan boobu lañ bokk te am na ci ñi nga xam ne nag bokkuñu Pastef rek mu Moustapha Diakhaté daal di ñëwaat ci histoire bi nga xam ne nag amoon na fi ci jamono yooyu noonu ndax mu ngi daal di fàttaliku askan bi nii nga xam ne nag moom mooy jamono deux vingt 2021 ba 2024 laata waa Pastef di jël li nga xam ne moom mooy nguur gi waaye ki nga xam ne moom mooy juge bi wax na ko ni euh, yow contexte bi ngay expliqué ni ba tey ak euh, yow ñun euh, lu ñu lay laaj dafa mel ni bokkul dañ lay laaj le vrai mot sens bi nga xam ne nag moom ngay wax bu fekkee yow jàppoo ni alaxu mu doon saaga te ñu daal di ko relayer ci réseaux sociaux yi foofu tam wax na ni bu ñu demee ba nii ni di ko gis ci réseaux sociaux yi mu bëri ci ay vues moom il n'est pas responsable de ça ndax moom ci télé la ko wax wax ci bu demee ba teeru ci fi nga xam ne nag moom mooy ci réseaux sociaux yi moom jàpp na ni il n'est pas responsable temps parce que moom 7TV euh, ñoo ko invité woon léegi tam ci waxtaan bi tey euh, toujours ci li nga xam nag Moustapha Diakhaté sekk na ko ak euh, juge bi wax na ko mu jox le vrai mot muy sensu alaxu bi ni par rapport ak li nga xam ne moom mooy euh, sa responsabilité bi mu ci dégagé moom wax na ni moom du dellu ginnaaw benn yoon ndax dafa jàpp ni ñëpp ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo daal di woteel euh, waa Pastef ci li nga xam ne mooy élection bii nii moom jàpp na ni ñooñu moo yu mu utiliser nag moom moo nekk li nga xam ne moom la leen mën a qualifier ndax moom nee na dafa jàpp ni ñoom warul ñu mënal woteel ñii nga xam ne nag ñoom ñoo ñu yóbboon ci guuta jamono 2021 ba àgg 2024. d'accord jërëjëf parce que nee na mhm. waa Pastef dañoo jàppoon euh, dañoo daal di nekk parti institution parti bi nga xam ne nag. Euh, dafa wax ni euh, parti Pastef dafa ni parti dafa nekk parti bi nga xam ne nag euh, ak lépp luñ fi jot a def nag dafa moom dafa jàpp ni kenn warul leen mun a woteel surtout ba ñu daal di am score bi nii ci la ko juge bi di ko euh, wax ni yow 54 pour cent yi nga xam ne nag ñoom ñoo jotoon woteel waa parti Pastef ci élection présidentielle ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy législative yi mu am Euh, askan bi nga xam ne nag votel nañu waa Pastef te ñoom bokkuñu sax ci parti Pastef yëpp nga daal di boole ci li nga xam ne nag moom sa moo bi moom da jàpp na euh, képp ku nekk daal yooyu yaa xam qualification bi ngay jox moo bi waaye moom moom euh, bu muy wax moo boobu noonu daanaka xëy na nii ni ñoo déggul wolof wala ni nii dañ koy tekki nu mu leen neexee waaye moom jubluwul di wax ni ñoom dañoo daal di torox parce que am na ñi nga xam nag explication boobu lañ koy jox biñ ko laajee nag gaaru dof euh, du teer lan mooy loolu pour moom moom nee na dafa jàpp ni mooy le malheur n'arrive plus euh, n'arrive jamais seul moom euh, noonu la ko tekkiyee après juge bi dakaa laaj kan mooy dof yi ñow ñan jàpp ni <laughs> ñoom ñooy dof yi ñi nga xam ne nag parce que nee na gaalu dof du teer mu ne euh, mooy ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo gis bulletin bulletin bi nga xam ne nag euh, nataalu Ousmane Sonko moom moo fa nekk mu ñu daal di jël bulletin boobu noonu daal di ko dugal seen enveloppe votel pour ñu mun a am majorité ci li nga xam mooy élection législative yi. ci la ko juge bi di ko laaj nag yow. Euh, yow par rapport ak wax yi ak sondage bi ni ci ban base nga ko mesurer maanaam fan nga jàpp ni ñëpp ñi nga xam ne nag ñoom ñoo woteel wa Pastef euh, askan la bi nga xam ne nag euh, dañoo alaxu non seulement mais waaye dañoo nekk ci gaal gaal gaal gaal bu dul teer moom jàpp nee na naa nii daal nañ ko analyser Euh, niñ niñ ko déggee daal waaye moom moom daanaka bi muy wax euh, jubluwul ci di euh, saaga parce que moom jàppul ni moo boobu saaga la donc xam naa fii ba ci kanam daal dinañ mën a am yeneen développement ndax lii nga xam ne nag jot naa ko indi mooy juste ay 4 minutes wala cinq minutes yi nga xam ne nag Moustapha Diakhaté taxaw na ko ci digganteem ak li nga xam ne moom mooy juge bi. ba tey nag euh, li nga xam ne moom mooy euh, atte bi mu ngi woy ndax Moustapha Diakhaté la ñu jox parole bi ki nga xam ne moom mooy maître El Hadj ko assisté mu ngi taxaw ci wetam di déglu pour mu daal di développé saa bu pare nag ci la maître El Hadj Diouf di jël kaddu gi ndax euh, fu mu toll ni nag président bi Moustapha Diakhaté la jox kaddu bi pour mu daal di développé balaa ñu koy atte il faut ñu xam sens bu muy waxee ak moo jàngat yi nga xam ne nag moom la am par rapport ak li nga xam nag moom mooy mooyu mu utilisé waaye en résumé lu ñu leen mën a wax daal mooy euh, Moustapha Diakhaté moom daan daanaka ginnaaw bi mu bañee ni li nga xam ne nag euh, moom lañ koy tuumal maanaam il refute parce que déjà dañ ko wax ni da ngaa saaga askan da ngaa lii mu ne non loolu du saaga mais ñëwaat ñëwaat na ci li nga xam ne nag euh, moom mooy. Euh, kaddu yi mu jotoon wax par rapport ak ñëpp ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jóg daal di jël euh, li nga xam ne moom mooy photo Ousmane Sonko daal di ko dugal euh, fi nga xam ne moom mooy seen ci urne bi donc moom jàpp na ni moom kaddu yi mu wax naan jàpp ko nii saaga xëy na fii ba ci kanam dinañ mën a am yeneen développement par rapport ak li nga xam ne nag moom mooy affaire Moustapha Diakhaté jërëjëf jërëjëf ci ci ci élément boobu new ña ña nga fële ca tribunal bu Ndakaaru euh, dégg ngeen ni mu ko waxee soxla nañ seen xalaat 77 810 90 90 ngeen daal di ci wax li nga xam ne moom ngeen ci xalaat mu mel ne kii di Moustapha Diakhaté ba léegi kàddu ya nga xam ne moom la waxoon ba tax ñu yóbbu ko foofee moom ba léegi euh, mi ngi taxaw fa mu taxawoon ba léegi euh, weddiwu ci benn yoon li mu wax day firnde ne moom nee na Ousmane Sonko kenn waru koo voteel euh, loolu la daal di wax jàpp na ne itam li mu wax ci ay kàddu du ay saaga nañu jël ki ne ci ligne bi te daal di dellu si waat allo allo. allo. oui salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. Télé Sénégal. Télé Sénégal TV. waaw maa ngi lay ziare man la Serigne Mor Niang bu Mbacké Bari. ñu ngi lay delloo ziar Serigne Mor. ñu ngi lay nuyu di leen nuyu waa région de bi yëpp rawatina waa Touba Mbacké. jërëjëf. sëñ Abdou Karim Mbacké borom dëkk bi ak sëñ euh, Cheikh Baara ak sëñ Abdou Rafael ibn Cheikh Mourou Fadal. Mm-hmm. ak sëñ Abdou Latif Mbacké mi nga xam ne boo jógee Daarou Salaam di dugg Touba foofu la dëkk mi ngi nuyu baax sëñ Abdou Latif. ñu ngi lay fay bu baax sëñ bi. soxna si. Mhm. Moustapha Diakhaté def naa ne gannaaw mu ngi ñu ngi koy déglu. Mhm. suñu wax du ci bari. te ñun yéenewul kenn lu bon. mais moom dalul candidat. Mhm. Moustapha Diakhaté même les candidats yi nga xam ne ci campagne bi lañ bokkoon compétir mais ñooñu félicité nañ sen adversaire. tous les candidats félicité nañ. adversaire muy président de la république ak président Ousmane Sonko xam nañ ne politique la woon dem nañ seen i campagne ñoom ñëpp même ñi ñu recalé ñi ñu recalé sax félicité nañ Ousmane Sonko mhm. parce que c'est la li tubaab wax la démocratie démocratie toujours dama ko doon wax seen télé yi amul prix booba yow nekkul fa am na ñu fi nekkoon mu ne wax démocratie amul prix mhm. ñi bokkoon ci campagne électorale bi ñëpp félicité nañ même ñi ci perdant yëpp félicité na mhm. donc moom il n'est moom bokkul mhm. moom comme nu ñuy def ni nga xam ne ñuy woote ni di wax ni moo tax lu ñuy woote tamit war nañu wax lu ñu xam mhm. nit ku baax lépp lay wax nanga ci xam dara isaa darabtum fi sabilillahi fatabayyanu li ngay wax xam ko as gor moo war a wax lu mu xamul soxna si arab yi dal na al xurru xurru maalam yatakallam mu nee na doomu aadama amul lu dul kàddoom soo waxee ci penc mi loola neex ba pare bu ñu la yóbboo tribunal nga weddi li nga waxoon lépp ana sa kàddu yi hmm. Moustapha Diakhaté ne